<clears throat> ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci téere bi ñuy wax fi riyaadi tafsir bu Mawlaana Cheikh Ibrahim Niass ñu ànd ak yéen ci suuratu Ali Imran gannaaw buñ jàngee xaswatu badrin ak xaswatu uxud ñu bëgg a jàng tey laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya ñu ne ay bi wàcc na bi nga xamee ne kenn ci yahud yi na ci alquran ñuy wax naan man za lazi yuqridu llaha qardan xasanan ana kan mooy lebal yàlla ci jaamam yi yàlla fay ko gannaaw nag yeewut te xamul lan mooy firi alquran te xamul ne yàlla li mu bëgg a wax foofu mooy ne ñiy def lu baax ci jaamu yàlla yi man yàlla dama koy mujj def bor boo xam ne dama leen koy fay ngir alal ji bañ a sànku mu jàpp ne yàlla moo soxla nag bay leb bay leb mu ñëw ci abu Aboubacar nag di ko kookoli naan ko nag seen yàlla ji gannaaw nag dara desuwu ko lu may muy sàkku pere amut ba mu ngi sàkku ñu lebal ko kon nag fi nekk nii ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo riche moom mooy ki ñàkk bi mu waxee loolu sidna Aboubacar nag sidna Aboubacar mer attaqué ko daal di koy blessé mu ñëw nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag pour jël ay droit ne ko yow mii yaa waxoon ne ah ñun duñ leen tooñ te yéen du ñu tooñ nañ def suñ diggante ah contrat boo xam ne kenn du jàggati moroomam kenn nag ci sa saxaaba yi mi ngi nii dóor na ma te gaañ na ma amut ci wax na ne su taxutoon ak kóllëre gi sax dafay taqale sama diggante bopp ak sama baat diggante jëmu jeeg baat yàlla wàcc nag ngir nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li waral sidna abubakar dal ci kaw waajooju ne laqad samia dégg na allahu yàlla qawla alladina waxi ñaa ñi nga xam ne qaalu wax nañ inna allah yàlla faqirun aji ñàkk la wa nahnu ñun aghniyaaw ñoo riis ñoo ko man yàlla ne wax ji dégg naa ko sa naktubu danañ bind danañ digal malaaka yi ñu bind wax jooju ci seen carnet yi mu nekk bàkkaar boo xam ne danañ leen ko fay sa bu danañu bind maa qaalu lañ wax ci seen carnet yi ndax yàlla mën leen koo fay ndax àdduna du du duñ fa duñ fi fayee waaye àllaaxira la ñuy fayee gannaaw nag ñoom seen wax yu ñaaw yi mooy ne dañoo dem bay tuumaal yàlla ne pauvre la ñoom ñoo am yàlla ne ne wax jooju duma ko bàyyi danaa ebal malaaka yi danaa digal malaaka yi ñu bind ko ci seen carnet amul foofu danaa wax malaaka yi ñu bind ba léegi waqatlahum ak rey gi ñu doon rey waqatlahum ak rey seen al ambiya yonent yi bi al ambiya yonent yi bi xayri xaqin ci lu du dëgg loolu danañ ko bind danañ bind rey giñ doon rey malaaka yi euh, rey giñ doon rey yonent ci tegu teguñ ko ci dëgg ndax yow loolu mooy seen aada kullama jaahum rasulun bi ma laa tahawa anfusahum fariqan kadabu wa fariqan yaqtuluuna danañ ko bind suñ dee nag ba ba buñ deeyee nag waxtu wuñ deeyee wa naqulu danañ wax ci àllaaxira ci lamiñ malaaka ne zuuqu mos leen azaabal xariqi mbugalam lakk mi te mooy mbugal mu métti ma te loolu la leen yàlla di préparel te ñoo ko sàkkoon zalika boobale mbugal bi ma qaddamat ci sabab si la jiital na ko aydiyakum loxo wa anna allaha yàlla laysa bi zallaamin déet muy tooñ ñi la abidi ñeel jaami yàlla du tooñ kenn inna allaha laa yadlum misqaala darratin wa in taku xasanatan yàlla du tooñ kenn waaye nag gannaaw ñoom ñoo tumaloon yàlla accusé ko ci ay wax yoo xam ne dara du ci dëgg mu yónnee ay yonentam ñu rey ko kon nag jëf jooju la leen yàlla di fay te ni leen koy fayee mooy mbugal moo xam ne lakk lay nekk alladina ñaa ñi nga xam ne xaalu wax nañ ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha yàlla ahida kóllëre na ak kóllëreante nag ñun wala ahida koosee nañu yàlla digal nañu ne ilay naa ci ñun ci tawraat yàlla wax leneen ci tawraat ne an laa nuumina buñ gëm li rasulin ñeel benn yonantu ñi nga xam ne wax nañu yonent bi sallallahu alayhi ne ko nag yàlla wax nañu ci tawraat ne buñ dëggal benn yonantu xataa yaatiyeenaa ba mu dikkee ñu bi ñu ci jaamu taakulu dana lekk woon naaru safara buñ gëm kenn lu may dañoo indil jaamu goo xam ne safara si moo koy lekk ndax xaabil ak haabil seen jamono ah buñ defaan jaamu yàlla dañ koy teg lu mel ni tabaski safara si ñëw lekk ko léegi nag loolu lañu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko boo ñu mënta indi lu mel nii daal duñ la mën a dëggal ndax loolu lañu yàlla dénkoon ci tawraat yàlla nag bëgg leen a wax ngir weddi leen ne qul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam to pour tontu ñooñu pour fen loo leen qad jaakum dikkal ne leen rusulun ay yonantu du benn yonantu yonantu yu bëree bëri ñëwoon na leen min lii njëkk sama amoon na yeneen yonent yoo xam ne ñëwoon nañ njëkk may wax indi woon bil bayinaati indi ay kéemtaan yu leer nañ wa billadi ak ci la nga xam ne xultum wax ngeen ko ni ki Zakariya ak Yaxya fa li ma qataltumuhum kon nag lu tax ngeen rey leen te ñoom indi woon nañ ay kéemtaan yu leer nañi indi woon nañ timit jaamu goo xam ne safara si moo koy lekk in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di dëggu ci li ngeen wax waaye nag bu mu la naqari yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ la def nii du yow lañ ko njëkk def fa in kazzabuuka ndem fenloo nañ la faqad kuziba fenloo woon nañ rusulun ay yonantu min qablika lu la jiitu ñoo xam ne jaawu dikkoo nañ bil baynaati ci ay kéemtaan yu leer nañ wa zuburi ak ay téere yu leer ka suxfi ibrahima ni ki ibrahima ak moussa wal kitaabil muniiri ak téere yoo xam ne dafa leer nañ ni ki tawraat ak injil yooyu yëpp amoon na kon nag buñ la defee nii bum na naqari kullu nafsin bépp bakkan zaa'iqatul mawti aji mos dee la wa innama tuwaffawna ndax den def na matal ujurakum yool seen dañ leen fay seeni jëf yowmal qiyaamati bés penc képp koo xam ne dund nga rek danga nga dee kullu man aasha la budda an yamuuta wal jazaau laysa fi dunya innama huwa fi l képp koo xam ne mos nga dund da nga mos dee te fay gi du ci àdduna waaye ci àlaxira la yàlla wax na ci suuratu raxmaane kullu man alayha faani fa man zuxsiya ku soreleef na ko ani naari ci safara wow dëqila dugaleef ko aljannati aljanna kooku def faqat faase dëgg-dëgg texe na eh, ci dugg gim dugg aljanna wamal xayaatu dunia déet eh, dundab àdduna bi illaa mataawul xurur lu may muy xéewal goo xam ne rek eh, muy xéewal goo xam du sax wa mal xayaatu dunya déet dundab àdduna bi illaa mataawul xururi lu may muy xéwal muy xéwal xéwal goo xam ne dafay wur dafay wor ndax alquran ah, ah, lu néew la kon nag gannaaw lu néew la rek dafay wor jarub daal nga ci xaabaaba moo tax Baay wax na ci xutba gi ne fa kuunu min abnaai l axirati wala takunu min abnaai dunia fa al yowma wala xisaab wa gadan xisaabun wala amal la tublawun na def na nattu leen def na examen leen fi amwaalikum ci seen alal ci yépp dañ dañ leen natt ci seen alal yi muy yàqu wala léegoo-léeg ñu leen ci teg ay farata di xool ndax da ngeen ko appliqué wala déedéet wa anfusikum ak ci seen bopp danañ leen nattu teg leen ay nattu ba pare wax leen ne dee leen jaamu yàlla dee leen julli ñu xool ndax da ngeen appliqué wala déen wala tasmaun na xal ngeen ne wallahi xal ngeen ne dégg min alladina ci ñaañ nga xam ne uutu joxam na leen alkitaaba téere te mooy yahud yeeg nasaraan yi min qablikum njëkk lu leen njëkk min qablikum njëkk seen yahud ak nasaara da ngeen dégg ci ñoom wa min alladina ak ñaañ nga xam ne ashraku bokkaale nañ ci arab yi adan lor kathiran gu bari ci ay ñu leen di saaga ak ñuy taan di wax lu du dëgg ak di def loo xam ne day jaxase ci yéen waaye nag yooyu yëpp nag wa in tasbiru ndem muñ ngeen yooyu wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna zalika naka loolu min azmil umuri ah, bokku na ci bokk na ci ki nga xam ne dafa dogu ci am mbiram ku dogu rek ci mbiram ah, ah, jëpp ne moom fa iza azamta fa tawakkal ala man daal fas yéene naa mu topp li nga xam ne nii moom la ma sama borom digal waskur jàngatal iza xase a jàppee allahu yàlla misaaqa alladina kulle rek ña nga xam ne uutu joxe ne leen alkitaaba téere ba yàlla jàpp ci ñoom kóllëre ci tawraat ne leen nag xam-xam bi la tubayyinunahu da ngeen ko leeral li naa si ñeel nit ñi wala taktumunahu te du ngeen ko nëbbu bi nga xamee ne jàpp nañ kóllëre googu nag fa nabazuuhu ñu fa nabazuuhu ñu sànni ñu sànni kóllëre ga waraa zuurim ci gannaaw yi gannaaw seen jëfuñ ko te jàngalewuñ ko xamlewuñ ko washtaraw ñu jënd bii ci kóllëre googu changé ko sama nañ njëg xalilan bu néew ñu jëmee ñu jëndee ko njëg bu néew te mooy àdduna fa bi sa bon na maa na lañ ko jëndee laa sa bon na bul njortu alladina ñaa ñi nga xam ne yafraxuuna danañu kontaan bi ma aatew ca lañ leen jox li nga xam ne yàlla xéewal na leen ko ñi ciy def lu bon di ci réeral nit ñi wa yuxibuuna ñuy bëgg an yuxmadu ñu sant leen bi ma lam yafaalu ci loo xam ne defuñ ko bëgg a jël jëfi nit ñi moomale ko seen bopp ngir puukare ñi leen koy taggee ñooñu dee falaa taxsabu di leen waxal loo xam ne defuñ ko ñooñu moom buñ jot mukk ne dinañ mucc yowmal qiyaamat ci bés ci ci ci mbugalam yàlla walahum te ñeel na leen adaabun mbugal alimun bu tar yàlla dañ leen mbugal mbugal mu tar ndax ñoo ñooñ dañoo bëgg li leen xéewal gi leen yàlla jox ñu koy utiliser ci lu bon ba noppi emuñ ci ñi bëgg a jël jëfi nit ñi am na ci jaam ñoo xam ne buñ leen taggee tagg gi da leen a sànq ndax day tax ñu fàttee seen jëf yu ñaaw yaakaar ne li ngeen di taggee noonu lañ mel am na ci ñoo xam ne nag waxtu woo leen taggee ñu baalu yàlla ne yow yàlla ah yàlla nga ma def ma mel niñ ma foogee te yàlla nga ma baal ci lañ xamut am na ñoo xam ne nag seen tagg yépp ci yàlla lañ koy delloo walillaahi aji sax la ñeel yàlla mulku samaawaati nguur ak osmaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi juróom xanaa muy tontu yahud bi doon wax naan ah, inna allaha faqirun wa nahnu yàlla ne ko wax jooju mante ne ndax osmaan yi lépp maa ko ak suuf yi juróom-ñaar wallahu yàlla qadirun aji attan la ala kulli cheyin ci lépp lëf yàlla attan na lépp bokk na ci mu mbugal xéebéer waaye muccal jullit ñi allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman lépp lu ci jub yàlla nañu ko yàlla fulal te dollee ñu ko xam-xam lépp lu ci dajeeg njumte yàlla ñu ko yàlla jéggal te labal ko ci géejëb jéggaleem ga ñu ñu nuyu ñëpp di ziara ñëpp di ndokkeel ñëpp ki leen doon defal émission bi mooy seen seen mbokk Mouhamed Omar Niass euh, fii Riyaad di tafsir bu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fii ci markaz Nasir al Haq bil Haq li tahfiz al Quran in aradtu ila al islaax ma stataatu wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh